ثم الصلاة والسلام على نبي رحمة وكاشف الغمة وشفيع الأمة وعلى آله وصحابته الأئمة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة موكي جليد وتدي nek ci gox yu fassanti ko yi ci rew mi ak ci bitim rew tan leer ngeen mun di nekk ci àdduna bi rekk maa ngi leen di boole ti juróomi baat yi ñu yàlla boole mu gën a tedd gën a sell gën a sakkan doy walis bépp nuyoo te benn nuyoo mënta doy walis ko muy asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa di del siwaat ci kartanal yàlla di sof ak yow li ma sosoon ak yow te mooy waxoon naa la démb ab commerçant dafa war a dëggu bu mu nekk kàccikat te mu nekk lu bari lool ci commerçant yi ab commerçant dafa war a wóor bañ a nekk ab xorkat bañ a nekk luubalkat bañ a nekk ku jubadi koo xam ne dafa dëng ba moo gën a dëng xale yi ab commerçant dafa war a moytandiku gëñ njaay sariya day bañ ko ci gëñ comme ni muy bañee kuy gëñ ci goreel di bañ kuy gëñ ci tafe waaye ab commerçant dafa war a nekk kuy mën a saraxe gannaaw bu mu fenkee bu mu asaka ji na fonku di saraxé ci liko yalla jox ko xamné li nga yor tim ko bët bu set lu ëpp junnee ba tek ci seen bët so bëggé mucc ci bët yoya del def ci menyinga yi nga xamné moy borom bët ya dara motax serigne sëriñ mbacké Mbàkke ak yalla gu tedd ga ba waja ñëwé ci mom sëriñ bi dama bëgg nga ñaanal ma yàlla musal ma ci gémmañ yi sëriñ fàllu ne ko ku bëgg a mukki ci gémmañ yi dellu hut looy def ci gémmañ yi waaye ku dul def ci gémmañ yi dara mënoo mukki ci gémmañ yi kon boo yoree marchandise moo xam ne lu hëpp bët bu set lu hëpp junney bët tekki seen bët ya fexeel ba gémmañ yooya nga xam ne bu bët xoolee gémmañ ay wax nga wut loo dugal ngaman gemmañ ya ndax nga man caa mucc waye yore marchandise bët ya di ko jadi wah. nga di wax bët ya di ko xool làmmiñ nga ya di wax ta do def dara ca gémmañ yooya ku la wax ne mën nga caa mucc dafa lay jay wax man nga dafa lay wax lila neex waye bo ca beugé mucci del sak sarax bo ca bëggee mucc del maye bo ca bëggee mucc nekkal kuy def ci biir ya dara waxon na la ñeent yooya kon suñ bopp darsa bi moy juromel bi moy as-samahatu wa taysir dañuy bëgg ci ab commerçant mu nekk ku jappali yi bo deggo nak nekk ku faaw da ngay nekk ku jappali ci sa jikko sa jikko jooja jàppandi ji moo lay may ku la tooñ nga jéggal ko rawat na muy sab client moo lay may ku la saaga doo ko ko delloo moo lay may ku la lor jëmee ci yow ci wàllu njaay walla ci wàllu jënd yow foo tollu da ngay tàllal sa xarxaram ba di muñ jëmee ci nit ñi ab commerçant dafa war a neex deret waye commerçant bu nakari dret bo xamne ku muy jaay bo amul sens bala njaay ma jeex ngeen xuloo bala njaay ma jeex ngeen daggante ay saga dóorante ay kurfaje koo koko gisé rek xamal ni deggu wut koko gisé rek xamal ni wóorut waye bo wóoree deggu rek man nga mucc ci jikko ju bon jooja ga xamne ah, commerçant yu bari ni ngoy jikko jikkoo jikko bo xamne ko dajé dajee ngay nokoy naxé benn nga bëgg koo nax te du ko xam rek jàng rawatina jàngkat tubaab yi toujours dañ lay jéem a nax te doo xam nax ya rek nga leen di sant di lay gërëm fekk yow ñu ngi reen di nañ la ba ngay bëgg a dee mais xamoo ca dara ñàkk xam xóorut kon xalal muy commerce dañ koo tabax ci sàkku alal ak dajale ko te loolu ak nay da cay xam ca sàkku ga ak dajale ga jamaa maalan wa addadahu moo tax kon yàlla bëgg ci commerçant yi ñu nekk ñu tabe ñu yaatu dënn ñu mën a tàllal seen xarxaram xaram ko ci nit ñi nekk ñu yaatu ñu mën a xajoo lu bari nekk ñu mën a encaisser commerçant bu la dàq encaisser kàddu yu bon kàddu yu ñaaw jëflante bu bon kooka mooy ki lay gën a bari lu muy encaisser xaalis waaye commerçant bu la gën a naqarit deret gën laa ñaaw jikko gën laa mën a saagaxante gën laa mën a ñeme ñàkkante mooy ki la gën a néew lu muy encaissé kon commerçant du ñeme ñàkkante koo ñàkk-ñàkk ay xameelam koo ñàkk-ñàkk ay ay bokkam moo tax saa yoo ñàkkee kenn nit da yow moom rek a ñàkk waaye nit ki boo ko ñàkkee ngir jëflante bu bon mbooleem mbokkam yu baax yi ko am ñàkkaale nga xaritam yu baax yi ko xaritoo ñàkkaale nga leen xameel yi nga yi ko xam ca wàlloo ñàkkaale nga leen moo tax léeg-léeg nga ñàkk kenn nit kenn nit kooka fekk ay junne junne nit ñoo nekk ci gannaawam kooka boo ci defee ba ñàkk ca téeméer ñaar fukk da ngay mujj ñàkk Sénégal yëpp pertement la rawatina Sénégal ni ko yàlla ni ko yàlla ràbbee ci ay waasoo ñi ràbbee ko ko ci ay euh, waa maanaam ay waasoo euh, ñi ak kalante ya ak bëggante ya motax ku fi bëgg jël di di xex ci walu xeetoo ak i ak i do ci am ndam waaw kenn mënu ko defee ko ci ci am ndam mag ñi tabaxoon nañ ko te dëgër na lool tukulor ba ma ngay togn séeréer ba naan tukulor jami séeréer séeréer ba ngi koy tooñ naan tukulóor euh, maanaam séeréer jaamu tukulóor demeet pël fuuta ba ngay tooñante bañ gisee ne loola ta daj ñu duggal ko ci ay kal ñe ya njaayeen yaag njóobeen ya demeet bakkal ya jeex moo tax Sénégal kenn mënu koo taxal ci wàllu waasoo kenn mënu koo taxal ci wàllu raasoo ku ko ca jéema a yëkkati yaa cay def waaye bu tere nit ña bëggante soppante ca wàllu woowa kon ab jaaykat dafa war a tabe rafet jikko ci sa jëflante sa tabeeg sa jëflante googa moo lay may soo amee client mu leb la nga lebal ko te yàlla tax soo ko lebalee mu yéex a fay nga muñal ko soo jegee ne manta fay nga may ko ko mbaa nga sarax ko ko bañ koo toppante foo toll di ko woo téléphone foo di ko gàccaal ci biir mbokkam wala nga koy gàccaal ci ay xaritam a baaxut moo tax yàlla yowmal qiyaam dana jot yàlla xisaab ko pour régler ko ba ko xoolee xamul dara lu baax julli yu baax amu ko amul weeru kor bu baax amul yoonu màkk amul jàngal quran amul dara lu baax moom daal benn bu baax dong la xam dafa nekkoon ku xoomal waxoon doomam yi nekk ci biti yi ak magasin yi ne leen képp ku leen leb nekk ku ñàkk lebal leen ko su mënta fay jéggal leen ko yàlla ne kii di jéggal ki ñàkk kii di jéggal ki mënut man yàlla maa gën a xëy ci jéggale waaye waaye jéggal naa la kon commerçant yi seen commerce ji seen caabi aljanna mi ngi ci seen loxo de su ngeen ko rafetalee ñu ñàkk ñi ngeen leen dibale léeg-léeg waa ji ñëw sax eh, di sa client jamono neexatut nga may ko wala jamono neexatut nga sarax ko wala nga leem dara ne ko yóbbu ko ca kër ga leboon na la mëntu laa fayati léegi léeg bu ñëwee ba traversé sa koñ bi dëpp léeg-léeg mu dem ba ne puissance interdit la yow nga fexe dafa langoon nga lànkarti ko lakk ni am xoo ko ba ñëw ne ko ay bi yow jàppatuma ci dara jégal naa la lépp ak jëral lii nga yóbbu kër ga su ko defee loolu lépp relation bu rafet la yàlla ne la yow yaay jé yaay jéem jéggale man ngay jéem a topp ndor nga xam ne ma la dàq jéggale topp ndor dara dugal aljana yonentu bee ko wax mu ne xusiba rajulun man kaana qablukum falam yujad lahu min alxayri shay'un illa annahu kaana yuxaalitu naasa wa kaana muusiran fa kaana ya'muru gilmaanahu an yatajaawasu an almuusiri qaala laahu azza wa jalla nahnu ahaqu bi dalika minhu tajaawasu anhu muslim ibnu mas'ud moo génnee hadis bi imaamu muslim solo ko boo demee ci saywul muslim nag ci fekk hadis bi kon waaye commerçant boo xam ne toppante ba mu sës rek moom daal bor boo mënta encaissé mooy boo boo mënta jotati rek te léeg-léeg gars yi sax dañ lay topp topp ba mu sës ñi topp topp mëntuñ caa jotati ñu far féetale ko yàlla bàyyi ba asaka ji jot rek ñu tiiree la ko ne ah waa ji na ma fanweeri junne ci asaka su ma si jotoon mën naa ko ko jox asaka kon naa ko génnee yooyu bokkut loo topp topp ba mu sotti mënoo saa jot nga bëgg koo tiiree yàlla féetale ko yàlla foo ko teg daganut sariya nag nee na bu la nit ki yore leen bor nga fay ko ko rek ba pare ne ko saa waay nag bul fàtte ne nga ma deux mu yëkkati ko jox la ko muy asaka joo ko joxoon mu delluwaat dara nekku ci waaye su fekkee nga ko koo joxoon ngir bëgg koo jàppaat te dara na xel na ba lu dul naa ko jox asaka ji ba ba mu téye ko xam ne moo ko moom mu mën ma koo joxaat moo tax ma koy jox asaka bu taxutoon loolu du ma jox mukk loolu xaraam na soo ko defee sax asaka ji demut fenn ki ñàkk ñàkk naa mu lu mu fayee baal ko ko te yàlla tax yaa ngi fiy tooñ yàlla bu dégg ba cëg di dimbali ko wërsëgu yàlla gee kàttanam gi sax dàq di ko tooñ te yàlla mbugalul la su ko defee boo lëggee yàlla mën laa jéggal say rëcc rëcci ku bëgg yàlla jéggal la dangay ngay jéggale ku bëgg yàlla topp la la yoomal xiyaam del toppanteeg nit ñi dafay dafa may dafa dafa may jaay li mu jaay tey tey mu xam ne man la ko séq ak day jaay reewantu maa ko gën a reew dafay jaay xamadi maa ko gën a xamadi dafay jaay nangam ak nangam maa ko gën a def nangam ma ne mbubam reew ak mbubam jubadee xamadi am ci mbubam ismu fa'il xëpp na waxuma la afala tafdil nga taxawati nan lu muy jaay lepp tay ma jënd ko te la muy jaay dara baaxut ca lu kon yow timit perte nga kon yalla bëgg na commerçant bo xamne dafa jappandi boko lebalé mu lebal la man ta fay mu may la commerçant bo xamne du xolo client am mukk du ak ñom du ak ñom ba bés tay man na taxaw di client am ñaar fukki xatam ludul lu rafet rek dox ci sen kaw waye leg leg nga am client bo xamni mu ko présenté nax nga ko wala client nga ko wala yow jënd kat bi leg leg nga am euh client bo xamni ne ñi ma waxati sama client la won ndax sen jëflante ga rafetut yoy yëpp dafa jara daw juroom bennel ba commerçant bi dafa wara xam lu dagan ak lu haram ma'rifatul halal wal haram waye di jaay ra yow mbiri lu haram ak lu dagan xamoo ca tus boo ko xamul foo jëm da war a fexe ba xam attey lislaam yi ci jëflante yi jëflante bu ne xam la ca yàlla xatte bala ngaa dugg ci jëflante ga waaye di jëflante yow xamoo li ca yàlla teg te doo dem laaji boroom xam-xam yi yow sa alal dong ngay seet kooka daganut war naa teet li yàlla tere mu jëm koo xam su ko defee li yàlla daganal mu jéem koo xam te jéem koo sóobu moo tax Omar ibnul Xataab moo méngoo woon na marché madinatul munawara daan wax ne laa yabiix fi suuqinaa ilaa man qad tafaqaha fi diin suñ marché bi ku déggut fiq du fi jaay su fekkoon ne ku déggut fiq du jaay ci marché yi ña fay des du bëri de soo déggut fiq dugg ci njaay mi mën nga caa dugal lu ca bokkut mën nga caa génnee lu ca bokk waaye suñ marché yi tamit bëri nañu ca nekk ñoo xam ne ay fukkaawu lañ jàng nañ ba jeexal téere yi jamono dab leen amuñ fuñ jàngale wala njàngale mi koomatut ak la ca aju ñu hubbu seeni magasin masala moo leen laaj xam nañ ko moo tax ñu yàlla na toowaare buñ xamee seen bopp ñu gën a ragal mooy commerçant yi bari na ci commerçant boo xam ne waat naa ci yàlla nekk na am na ta am na ta ammuq am ta makkun am ta baxur fi jamiil funuun su boobaa nag boo ko jàppee commerce bi rek mu daane la jàng na ba jeexal téere yi dem ubbi bitigam di jaay ku mel noona bu ko ragal yàlla ñu ñulugee rek la muy def lu lu rafet lay doon lu sell lay doon waaye nag bañ a nekk ku jàng ba pare jàllal bi ku jàng kooku baaxut ndax jàng ak jàng ñoo bokkee loolu dafa bëri juróom ñaareel ba mooy al iktisaaru min sikrillah ab jaaykat dafa war a bëri lu muy tudd yàlla am nga occasion foofa mën nga di tudd yàlla jàng alquran day ñaan feeg bay clients ñëwee bu ñëwee boo leen jaayaate rek delluwaat ci sa tudd yàlla ndax mbiram njaay daal dafa bëri ay soxla yu ci ne yu lay wat lu lay soxlawoo wali settantal wali tudd maanaam ak sàggan ndax marché baag nañuy dajee yooyu yëpp doo ko toppee mu yàqal la waaye boo tuddee yàlla lu bëri rek yàlla dimbale la yàllaa ngay tàggane rijaalun laa tulihim tijaaratun wala bayun an dikrillah man de yàlla man yàlla bëgg naa commerçant yoo xam ne lu marché ba jax-jax duñ ko topp ba mu yàqal leen tudd yàlla duñ ko topp ba mu yàqaleen wa iqaami salaat taxawal julli wa itaayi sakaati yaxaafuuna yawman tataqallabu fihi alquluub wal absaar lii la yàlla bëgg yaa ngi jaay de waaye bu waxtu way jot rek nga ne ràpp sa cantine bi seet jàkk jëla gën a jege dem julli fa ñëw continuer jaay yaa ngi jaay de waaye yaa jëloon engagement ci jël doo bu waxtu wa jotee rek da nga téye sa kurusu wirdo bu jël waxtu wasifa wa jotee nga def ko waaye yow su fekkee diina ji ndef rek bala ngaa julli fekk na euh, waxtu wa paase na fu foo ko jeeg ko rek nga koy mane bala ngaa wirdo fekk paase na waaye sa commerce bi jëralu la dagg wirdo jëralu la julli jaralu la tudd yàlla loola tamit du dara yaa ngi jëndee saaxaat laaxira ci sa àdduna perte la kon yalla dafa bëgg commerçant yo xam ne seen commerce ba du len yakal tuddu yalla du len yakal julli du len yakal joxe asaka du len yakal jang alquran waye timit njaay ma eh, eh, loola timit di tuddu yalla ga ak njaay ak ak ak ak julli ya ak joxe asaka ya ak janggal alquran ma du len yakal njaay ma di fexé ba boole ñaar yépp kon bari len lu gëni tuddu yalla yeen commerçant yi de len jang alquran téyel sa kaamil bi ngay jàng di settantal su client bi ñëwee nuyu nga fay ko xool fi nga toogoon boo waxee moom ba pare nga continuer haat sa kurus gi di wax laa ilaha illallah wala nga koy wax ci say baaraam del def istighfar del julli ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallama am nga occasion bu bëree bëri lool lépp dana la dimbale nga man koo taxawee tabaarakallaahu nam gën a sellee nam gën a rafetee kon nag juróom ñaari jikko yi lañu bëgg ci commerçant bu ne mu jéem ko jikkowu ba ki njëkk mooy dëggu ñaareel ba mooy kóolute euh, ñetteel ba mooy daw lépp luy indi ak ngëñ wan ko gannaaw ab commerce bu gëñ ko defee tamit del saraxe ci li la yàlla jox waaye na nga fonk joxe asaka ja na nga nekk ku tabe ku jàppandi ci jënd ku jàppandi ci njaay euh, yàlla dafa bëgg commerçant boo xam ne buy jaay dafay jàppandi buy jënd tamit dafay jàppandi waaye dafa am commerçant yoo xam ne kenn mënuñoo jënd mënu jënde ci ñoom waxante yoo xam ne mën naa jël trente trente trente minutes am tamit client yoo xam ne kenn mënu leen a jaay ku leen bala nga bala ngaa am problème dajeeg ñoom fu ne la ñuy dal wàññil ma lii dañ fa nekk wax lu ëpp ñaar fukki ni jël sa temps bi ku mel noonu yàlla bëggul ko yonent bi nee na rahimallahu rajulan saman ida baa wa ida stara wa ida qtada yàlla bëgg na jaam bu jàppandi ci buy jaay nekk ku jàppandi buy jënd nekk ku jàppandi buy fayee ku bor nekk ku jàppandi buñ koy fay bor mu nekk ku jàppandi jàppandi daal lum dugg rafetal ko waaye gañ-gañalaak forceek kutur kutureek yooyu lu mu dugg ñaawal ko yii jar naa bàyyi xel euh, bu baax a baax a baax a baax kon nag nañ ci bàyyi xel bu baax yow jaaykat bi na nga nekk ku jàppandi na nga fexe ba xam lu dagan ak lu araam na nga fexe ba bëri looy tudd yàlla yii mooy juróom-ñaari jikko yi nga xam ne commerçant bu nekk bëgg nañ mu fexe ba jikkoo ko yéen commerçant yi may déglu nag euh, comme dee xamagut xamuñ kañ la yi ngi ci xam ba xas téye ko téyel mu dëgër foofu la yi ngi ci ñàkk waaye xam na yoo ci xam demal nga wuti ko su yàlla dogalee xamoo ca benn fexeel nga dem wuti ko ndax yi ku leen ñàkk te dangay commerce yaa ngi xaru yaa ngi xaru yaa ngi ci musiba mu rëy rëy rëy waaye boo leen xamee ba pare di leen pratiquer nag boobaa nag yow yaa ngi yore sa caabi yoo xam ne ëllëg mën nga ci hubbi sa aljana waaye bi ci tegu tamit yéen commerçant yi dee leen daw lépp luy indi ak riba riba baaxut te mooy dolli da nga dégg yaaram yi di wax ne ndax bu ñu waxee ar riba fi lugati rek mooy asiyaadatu wal intifaa yuqaalu rabal maalu ay zaada wa yuqaalu raba fulaanun ala rabiyati ay maanaam ala wartafaa ilayha ci lañ jëlee rubbootu ji firi tund moo tax alquran wa min ayaatihi anaka taral arda xaashiatan fa ida ansalna alayha ma ihtasat wa kon ci la baat boobu jógee ko mooy lépp lu dooleeku rek wala mu funki wala mu préparé ngir sax gàncax yàlla ngi koy waxaat ci jeneen aaya wala takunu kallati naqadat gazlaha min baadi quwatin ankaasan tattaxisuuna aymanakum daqalan baynakum an takuna ummatun hiya arba min ummatin kon arbaaje mooy afaala tafdil ja kon jaay baat bi foofu la bàyyeekoo ci luxa waaye nag riba ci fuqaaw yi mooy dolli ci rësu maal ba ngir yéexe diir ba waa ji yoreel na la fanweeri junne ngeen jëm weer wu dee la cinq la war a fay la cinq jot na mënta fay nga ne ko dolli waat ci vingt cinq muy muy deux cent mille wala muy cent soixante quinze mille su ko defee ñu jëm beneen weer wu deewaat wala ñu jëmaat beneen la quinze kooka da ngaa dolli kooka dafa xaraam dolli bor ba dolli diir ba wala sax aw ziyaadatu jinsin ala jinsihi fil bay'i li ajalin aw aw li xayri ajalin wenn xeet woo xam ne ñoo bokk xeet wu nangu wut xëppalaante dugub ak dugub ceeb ak ceeb mboq ak mboq nga jël yow jox ma ñaari saakooy mboq pour ma jox la benn saako mboq wala saako genn wàll léegi léegi wala ñi dem feeg weer wu dee laa la koy jox yooyu yëpp dafa xaraam ndax lépp lu bokk xeet xëppalante ci xaraam na wala sax lu bokkul xeet aw ziyaadati jinsin ala xayri jinsihi fil bay'i lil ajal buñ bokkul xeet dagan na xëppalante waaye daganul yéexee dagan na ma jox la ñaari saakoy gerte nga jox ma benn saako ceeb wala nga jox ma benn saako mboq ma jox la ñaari saakooy gerte wala ñaari saakooy bene waaye nag léegi léegi lay doon buñ ko naree dem ëllëg rek wala ci kii rek xaraam na moo tax nga gis nga ca àll ba léegi léegi saree tëb jën ba ñëw ne ah, ah benn kilo dugub ñaari kilo yi jën dagan na waaye nag boo ne ko jox ma jën yi ma dem jëli dugub ji rek xaraam na dugub jaa ngi nii jën yaa ngi nii teg teg gi rek bu ca loolu amul rek amul yeddan bi yeddin kon buñ bokkatul xeer rek xëppalante ga dagan na waaye yéexe ga daganut su fekkee nag bokkuñu xeet xëppalante ga ak yéexe ga yépp xaraam na yeddan bi yeddin mislan bi mislin su xeet ya xuutee nag dagan na xëppalante waaye daganut yéexe kon loolu ci lay ñëw nga ci xaalis euro ba dugg yaa ñëw bëgg a dem siin yore CFA quarante millions bëgg ko la ko defal euro taux ba cay tegu dagan na ca kay wecci waaye nag yeddan bi yadin jox ma léegi ma jox la léegi waaye naa la jox jox ma xaalis bi ma dem jox ma CFA bi ma dem wuti euro xaraam na déedéet xaraam na lool moo tax yàlla lu mu xaraamal boo ko defee am ci problème ñaata ci ay commerçant sandaga wala furul sandaga ñoo may déglu wala déglu wuñ ma ñaataa ci joxe seen CFA ñu war leen a utal euro daw ak moom mbaa ñu war leen a utal dollar daw ak moom nga doxee ci bis ni ki tey jotuñ ci seen xaalis ba ñaata lañ kenn xamul ni mu dañoo def li leen yàlla tere da leen yàlla digaloon bu ko defoon du ñu am problème mooy CFA laa bëgg CFA laa am bëgg ku ma ko defal euro wala dollar demal wuti foo mën a amee yàqam fekk ma sama place mbaa ma fekk la fi ngeen nekk noona ci seen banc bi ngeen toog ma ñëw nga jox ma ma jox la nga dem ma dem waaye nag am utali ma defal ma nangam waaye ja daw ak sa xaalis bi nga perte ba yowmal xiyaam ngeen dajeeti waaye fi dootoo fi jàppeeti kon nañuy bàyyi li ñu yàllay tere yooyu yëpp nañ ko daw kon loolu ma wax la mooy ribal fadli nañ koy riba goo xam ne li ko tax mooy hëppalante wax naa la ci tamit riba nasi'a mooy riba goo xam ne li ko tax a xaraam mooy yéexe ga xëppalante ga dagan na waaye yéexe gi law moo xaraam yooyu yëpp nañ koy daw ci xeetu riba lii mooy xeetu riba yi benn rek muy ribal na wala muy riba nasi'a mënu ko génn yëpp boo ci dàq ci xeetu riba yi rek yi lay doon riba goo xam ne xëppalante tax daganut saakoob dugub saakoob dugub rek saakoob gerte saakoob gerte ñaar téeméeri CFA ñaar téeméeri CFA mu jeex waaye bu ci ëppalante xamee ci jëflante gi xaraam na moo xam ci bor la ak ñu ci aju yëpp xaraam na buñ bokkul xeet nag dagan nañ ëppalante waaye nag yéexe ga daganut jox ma ma jox la léegi amul ma dem wuti bu dee wér xaraam na nañ mooy sandi ko riba moom nag lekk ko ak jëflante ko dafa bokk ci bàkkaar yi gën a mag bokk ci bàkkaar yoo xam ne dafay gott képp koo xam ne nii yaa ngi koy jëflante ndax riba rek la yàlla rëbbu ki koy lekk ki ko koy lekkale ki koy bind tabaarakallaahu rëbbaale seeda yaag rëbbaale euh, lépp lu ca xaju loolu lépp dafa jara daw euh, malaaka yi boole ko di la rëbbu mboolem nit ñu baax ñi di la rëbbu yooyu yëpp jar naa daw kon nag liy tegtale xaraam ak riba ci alquran ayaat yu bari la li koy tegtale ci hadis xadis yu bëri la bokk na ca aaya yàlla wax ne yamxaqullahu riba wa yurbi kafarin azim yàlla tamit ne wa ahrallahu albay'a wa harama riba yàlla ne yaa ayyuhan taqullaha wa daru ma baqiya min riba in kuntum muminin fa in lam tafaalu fa'zanu bi harbin min allahi wa rasulihi suratu baqara aaya ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett bi ma la njëkk a wax tamit yamxaqullahu riba suratu baqara aayaam ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn kon gis nga yàlla waxam bëri na waaye takk xareem bëriwut waaye ñiy lekk ribaane duñ ko bàyyi yàlla nee na bu ëllëgee danaa geer ak ñoom te maag sama yonantu bi ñooy far yàlla ak yonantu bi ku ñu far di geer ak yow waaye waaye yow ku la xam sax du mucc kon nag képp kuy lekk riba bu ëllëgee da nga yàlla ñaari yoon rek la yàlla takk la takk gar geer alquran ba alquran jeex benn yoon la ci yàlla takk geer mooy ñi lekk riba moo tax lekk katab riba balaa dee nga yërëm ko dana dana torox la ma xamoon lépp dana ko ñàkk lam dajale woon lépp dana dana dana yàqu mu dee bàyyi fi ay doomam nga yërëm leen démb bu dee dañ ko dañ koo ñeewoon ci commencement ba waaye ba ngeen dem ak ci ba ngeen arrivé rek fekk na ñoom ñëpp torox nañ doom yëpp nga yërëm leen loolu lépp baaxut ndax euh, lekk googa lekk riba googa muy xalal joxaraam ja ci la doon alimenté wu di ci alimenté doomam te loolu yonentu nee na bépp xaraam xalal ju xaraam ku cay lekk fa naaru awla bii loolu moo mu gotti ko mooy dal seen kaw te kon baaxul riba nañ ko daw lu bon la yàlla ne koy def naa ger ak yow alquran ba alquran jeex fii rek la yàlla takkee xare mooy lekk riba hadisul qudsi benn yoon la ci yàlla takk xare mooy wëliyu yàlla yi ku ko ci bañal benn safara nga jëm moo tax mu ne man aada lii waliyan faqad azantuhu bil harb bul jàpp ci benn sëriñ ne mooy sama sëriñ tax ngay contre beneen sëriñ ab jàmbur di ko wax wax ju bon boo guddee fan àdduna yar la boo gàttee fan bàmmeel yar la kenn mënu ci dara ndax benn wëlliyu bu la bañee wëlliyu yëpp bañ la ñoom ñëpp ñoo bokk réseau moo tax seexu tiyaan li maqaamaam bi rëy rëy mu ne nga jàpp sama tariqa bi tax ngay bañ beneen wëlliyu mënalu ma la dara kenn mënu la dara tamit yoomal qiyaam safara nga jëm kon nitu yàlla kenn du ko bañ bu ca tegu Buxaari yooyu ak muslim mu bokk ci hadisi abi hurayra ya yonentu bi ne ijtanibu sab'al mubiqaat qaalu ya rasulallah wa ma hunna qaala ashirku billah wa sihra wa qatlu nafsi lati harama la ilaha bil haqq wa akla riba wa akla maal al yatim wa tawalla yawma sahfi wa qazfa al muhsanati al mu'minati al ghafilat yonent bi ne mooy tandiku leen juróom-ñaari bàkkaar yi xalak seeni borom bi ci njëkk mu ne bokkaale yàlla njabar rey bakkan bu yàlla xaraamal ñi rey ko lekk lek halu lu jirim daw bi sa xare xas nit ñu bax ni jigen bu sangew sagal lol ci bàkkaar gem yalla nga sakku ko mëno ko jor rek nga taxaw diko tumal kaddu yu bon legi ni ñaa ngay tumalante ci facebook yi internet yi whatsapp yi wax ju bon ju nek ni di wax sa morom te mo ci mom dara bon rek a tax wala la nga nek la nekkul rek da koy bañal Malik wax na ko ca téere bu ñu tuddé kifaayatu raaxibiina mu ne jamono lañ joo xam ne daal nit ñi dañuy lépp loo ne yaa ngi koy jubal ne mooy li baax keneen lam ne nga ne dara nekku ci lu bon la moo tax mu ne jikko ya yahood ya jikko woon ci jamono ji mooy jikko jullit ñu bari wa qaalatil yahuudu laysati nasaara ala shay wa qaalatil nasaara laysatil yahuudu ala shay loolu lépp nag euh, bon rek a tax moo tax ñu jàpp tariqa tuddee seen bopp salafi ya ñu ngay contre borom tariqa ya borom tarixa yi ña ngay contre ñale borom tarixa yi ci seen biir ña ngay contrante ña ca bokk tarixa ña ca bokk benn tarixa sax ña ngay contrante yooyu yëpp kon bakkan rek moo ko waral waaye yooyu yëpp dara baaxut ci nañ ko daw nañ ko moytu kon eh, riba ku koy jëfandikoo yaa ngi jëfandikoo bàkkaar bu mag yaa ngi jëfandikoo bàkkaar buy gotti borom yaa ngi jëfandikoo bakkaar boo xam ne dana la toroxal ci àdduna ba ñëpp yërëm la mu door laa toroxal ëllëg ci àllaaxira yóbbu la safara bu la yàlla jégalut moo tax kon jar naa daw nañ koy bàyyi xel yëpp commerçant bi na koy daw ci jëflanteem ci wàllu riba ak nay daw taxañu ci lépp lu xaraam nga nekk ca li yàlla tere nga nekk ca taxañu ca rek mel ni kañ ak guddi ba ñoo dara te gis nga riba ak lépp luy lu xaraam xeet yëpp la ko yàlla xaraamal liñ ko xaraamale ci xeetu yoon dina ko xaraamale ci nit yi Muusaa ña ibrahima ya isa ya moo tax mu ne fa bi zulmin lazina haadu xaram na alayhim tayibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kasira wa akhdihim riba wa qannuhu anhu wa aklihim amwal nas fi batli wa atadna lil kafirin minhu azaban alima kooku ma nga ca suratu nisaa yi ayaat tabarakallahu téeméer ak maanaam juróom benn fukk ak benn kon nañ ko daw yëpp jar naa daw su ko defee kon nak li tax yalla haramal riba dara waralu ko ba xaraamal ki koy lek, ki ko koy lekale ak lepp lu ci askaniko ndax riba fay dafa mana jembat jëmbat ak nonel ci nit ñi ndax nit ki su fekke dafa la jekkoon ba tax mu jekkali la ci salal ji yow timit bis bo demé ba genn ci loolu rek fay mujj nga soppeku sab non bo xamne doto ko bëggati mukk riba Euh, ku koy jëflante xalal ji dafa mel ni glace rek mën naa formé wu ba nga ne glace gaa ngi nii mu xëy lépp seey yàqu kenn mënu ci dara kon nañu daw ribal fadri riba boo xam ne dolla la tax mu xaraam nañu daw ribaawu nasi'a yonent bi waxoon na ko ne jaayee leen wurus ci wurus laa ta maanaam laa tabiu zahaba bi zahabi illa mislan bi mislin comme wurus ak wurus la daal yaddan bi yaddin mislan bi mislin ولا تشفوا بعدها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الى مثلا بمثل ولا تشفوا بعدها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بالناجس بلين جاي لو فاد تيو الا يدا بيد امنا في روايه بن الى وسن بوسن مثلا بمثل لولو بخاري اك مسلم ييب اندي نان حديث بي كون لي ليب دا فاي حرام الربا الفضلي ليب لو خاني مو بوكو خيت bu ca kenn xëppalante ci dara riba nasiha tamit hadis yi ñëw di ko tere bari na riba boo xam ne yéex ga rek moo ko taxaaraam dafa daan am ci jamonoy jaahiliya yi ñu ko daan jëflante yooyu yëpp dañ ko war a daw su ko defee kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam koy wax dafa fekkoon gaa yi di leb ci madinatul munawara mu ne nag kuy leb na leb luñ xam buy fay mu fay kem lam leboon te nañ ko kontaleexoon wala nañ ko ko peesaleexoon moo tax yonent bi leboon na ci génn góor euh, tabaarakallaahu benn gëléem mu dikkal ko gëléemu sarax ya ñëw mu digal ma man mii mooy ku solo hadis bi di abu rafia ne naa dem ma fayal ko borom gëléemam booba mu leboon ba ma demee fekkuma ca gëléem ya lu dul gëléem yoo xam ne dafa rafet nekk tànneef lool yonentu bi ne ma jox ko ko rek gëlem la ma borom gëlem la koy fay rek su ma ko fayee nag gën a suur ak gëna rafet ala kulli hal fayn wa rafet rek la moo mu ne ko i'ti fa inna xiyaarukum ahsanukum qadaan ki gën ci yeen moy ki gëna rafet mu muy fayé kon ñi fayoon ñi lebalon la dugub du ñaaw ci fukki go nga fay fukki go yu rafet fekk waaje sartaawu len ko dugub faada dara neeku ci fayn wa rafet rek la waaje lebalon la aw fas mën naa am wu làppoon la nga soxla ko ci nawet bi dem ba ngooñ am nga am fas bu baax yafal ko jox ko dugub ñëw fayee ko ko ko fayin wu rafet rek la donte wii moo gën a suur moo gën a nekk ndaw lépp comme fas la fas la rek jeex na loolu lépp ci mbaax la ku ko def tamit yàlla dana la fay xam naa boo ma toppee suba ci waxtu wii wax naa ak yow njaay ak li ci xaju wax naa yow ak riba niñ ko waree teet danaa wax ak yow li muy tuddee mudaaraba mudaaraba nag bëri na ci commerce yi mooy lu ñuy tuddee xiraat mooy yow mi may déglu yaa am say surga ci dëkk bi bëgg leen a ubbil magasin wala nga ubbil leen bitik bu ko defee buñ demee ba juróom benn weer wala fukki fukki weer ak ñaar ngeen def inventaire ngeen génnee yaxu xaalis ba teg ko fële du ko defee bénéfice ba nag bu leen neexee def ko ñetti xaaj yi lu ngeen juboo rek fekkee da juboo ci ñetti xaaj magasin bi xaaju boppam yow mi moom alal ci sa xaaja bopp ah su ko defee tamit moom ma ci doon liggéey xaaja boppam ah, danaa la ko wax suba li ci lislaam nangu lu ci bëri nu ñu koy defee daganut ubbil nit ki cantine def ko yére ba pare jox ko ko ngeen ngeen def xiraat ngeen rek la déedéet xiraat ni muy mën a amee da koy jox xaalis bi ba pare mu téye su fekkee dafa ne nangam laa bëgg jënd nag mën nga koo orienté ci jàppale ko mu jënd loola buy sarfe nag fekk yow wutal booy nga magasin fekk wut nga ko ngeen ngeen door a jël bagage def ca waaye jox ko moom si boppam nga jënd bagage ba pare door koo jox mu nekk fa di jaay ajiir la war a doon ajiir mooy baajo weer wu dee rek nga fay ko mu dem nga dem lii la lislaam bëgg bu weer dee te jaayul benn morso da nga ko war a fay bu weer dee woon mu jaay cantine ba yëpp wala mu jaay fukki fan juróom ci ko sarte loolu lépp fukki fan ak juróom dong nga koy fay lii kon fokk ñu xàmmee mudaarabatu fokk ñu xàmmee ijaaratu boo ma toppee suba danaa jëm ak yow ci wet na fokk ñu xàmmee sharikatu mooy bokk def associé di liggéey nga yëkkati téeméer gi ne may ko téeméer bi ne ñi ñi ñi boole su ñaari xaalis ya di dem siin walla ñu dem defi nangam di liggéey moo xam wala ñu boole suñ jëmm yi amuñ xaalis maa maag yow ñoo bokk nekk maçon foo xëy ma xëy fa ñu fayeeku ñu bokk fayeeku ko euh, loolu lépp naa la ci wax suba insha allahu ci diggante mudaarabatu naa la wax ci diggante ijaaratu naa la wax sharikatu muy bokk associé di liggéey boole xalal naa la wax tayale li ñu tuddee rëxlu yooyu yëpp moo ma toppee suba ci waxtu wi bi ci xaj rek ñu dugal ko ci wa axiru daawaana an alhamdulilah rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu wa sallallahu wa sallama ala nabiyi rahma wa kaashifi l gumma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 dembu mangi ngi teqalikoo nak yow ci riba ak ni mané yak alal ni mu mané ya gotti dit ci ni mu mané ya démé barke ci alal gi ci jëm gi ci place bi ba ci njabot gi ko don dundé ma deulon la nak na suma dana ñew ak yow sofcha ci tuddé mu dara batu Mudara betunak moy sabda saddalante dañ koy wax murabahatu dañ koy wax ben benn jëflante la bu bari ay tour donte ay façon am lu bëree bari la waye suma la ko don jegel dal mooy kii dafa am xaalis kii amul xaalis waaye mën naa liggéey ci xaalis ba lu koy yokk ñi boole ñoom ñaar ñi associé kii joxe alal kii joxe xelaat wala xam-xam wala kartan buy tax alal ja yokk yor naa deux millions jox la ko yow yaay choisir marchandise mooy jënd duma la wax ne lii rek nga war a jënd duma la wax ne lii rek nga war a jaay man daal dama laa jox xaalis ba tinc la ne la demal nga yaxantu ci noo mën a def ba alal ji yokku rek moo ma ñor ma ko fi bàyyee asaka lekk ko ndaxaan mu jot dañ ca génnee fukki junne fek man na ñaari million su boba kon million bu na juroomi junne bu dewe ne nga genné xaat bu yagge rek luy wañé ko te yokku ci jeex rek la jëm kon nak alal jaangi ni di sa tank yow man nga dox waya mo tank kay ma jox la nak tank yo doxé muy ñaari million yi demal bo liggéeyee 6 mois wala nga liggéey 12 mois nga toog ma toog ñi génnee xaalis ba teg ko fële muy ñaari million yi la nga ca yokk lépp ci bénéfice muy yeneen ñaari million mbaa un million cinq cent ngeen wax nu ngeen ca jubóoyee balaa dem nag nga ne ko boo ñëwee lépp lu tegu ci ñaari million yi ci bénéfice dañ koy xaaj ñetti xaaj man ma jël ñaar ya man mu moom xaalis bi yow nga jël benn ba wala yow nga jël ñaar ya man ma jël benn ba wala ñi xaaj ko ci digg bi man ma jël benn yow nga jël benn wala ñi xaaj ko ci digg bi fa nga doon liggéeyee xaalis ba comme dafa laaj fi nga doon fayee benn ba fa nga koo doon magasin ba moom ko benn bi man benn bi yow lu ngeen jubóowoo rek lislaam nangu na ko su ngeen diggee su ngeen jubóowoo ci digg ba lislaam nangu na su ngeen jubóowoo ci lu xaaj ba lislaam nangu na su ngeen su ngeen jubóowoo ci ñeenteelu xaaj ba tabarakallah muy karba l'islam timit nanguna bu ngeen ki juboo rek lislaam ko su ko defé xaalis ba nak ma nga non ci sa loxo bu yaqo do ca warlu dara yeen ñaar ñeppay bokku perte su ngeen gagné yeen ñaar ñeppay bokku bénéfice so cay liggéey di ca yaxantu ba adma jot fukki wér ak ñaar la ba lepp lañu bokku génné ko asaka su ko génné ba pare la ca des nag ñu ma génnee sama su maal la ca des nag ca bénéfice ba ñu door ko séddoo moo xam lañ ca juboo woon rek ca digg ba mbaa ñetteelu ba mbaa ñeenteelu xaaj ba lii lañuy ñuy tuddee muraabaxatu lii lañuy tuddee tamit mu daa rabatu tuddee nañ ko muraabaxatu lu tax ndax kenn ku ci nekk dafa bénéfice wu ci moromam maa ngi yaa ngi nii bénéfice wu nga ci jël alal ji def ko muy sa tànk man tamit bénéfice wu naa ci yow ci yokk gi nga ko yokk kon xam naa lu ma la dimbalee mais yow tamit am nga loo ma dimbalee bu fi xaalis bi nekkoon lam toll rek mu dolli ko amul benn njariñ moo tax ñu tuddee ko muraabax danañ koy tuddee xiraat soo jëlee baatab xiraat tabaarakallaahu mi ngi bàyyi ko ci baatab xardu xardu ci lu xam mooy tekk alqatu ji firi dog ndax da kenn ku ne dagg nga ci sa mbir sa sa borom sa moroom dara borom alal jile dog na ab xaaj ñeel moromam mooy jël na ab xaaj ci àllam jox ko waa ji waa ji tamit di moromam dagg na ab xaaj ci waxtoom bu muy dem di ca sonn di ca liggéey pour alal ji mën a yokk loolu tax ñu tuddee ko xiraat boo gisee tamit ñu tuddee ko tabaarakallaahu mu daara bëtu ndax fas la goo xam ne ñaari pet la ñaari ñaari pet la xam ñaari ñaari maanaam eh, koñ wala ñaari pet su ko defee kenn ku ci nekk ci yéen jàpp nga ca benn pet ba yow yaa jàpp ci xalal ji kii jàpp ca bénéfice ba xalal jay jur jox naa la alal di xaar bénéfice ba mu war a mën a jur su boobaa nag bu bénéfice amee yéen koy bokk bu perte amé ci sen kaw lay dal yeen ñep li moy moy mu batu li tabarakallah moy xiraat li moy moy murabahatu bari na fi ci suñu commerçant yi ñukoy def waye niñ koy defé day bari lu ca manki dina la ko wax li nak liggéey bu fi yag la jox la alal nga dem liggéeyi téwal ko ci mois wala juro wala fukki wér ak ñaar ñi tek bop alal ja seddoo bénéfice ba lu fi yàgg la yonent bi bi muy ñëw fi la ko fekk arab yi dañ ko doon liggéeyee njëkk lislaam di ñëw moo tax yonent bi avant ñu koy yónni da ko doon liggéeyee bul fàtte ne sayyidatuna Xadijatu borom alal la da ko joxoon alalam yonent ba nekk di ca liggéey dafa Xadijatu xiraat bu demee tabaarakallaahu juróom benn weer wala fukki weer ak ñaar yonent bi ñëw teewal alal ja su ko defee bénéfice ba ñoom ñaar ñu séddoo ko gannaaw bi mu teewalee bopp alal ja ba pare loolu ci la doon yonent bi di liggéey ak sayyidatuna Xadijatu boo demee nag ci ku mel ni imaamu Sawkaani naylul awtaar wala nga dem ci ibnu hasmin dañuy wax ni mbooleem jëflante yi ñuy jëflante ci wàllu fiq am na buntu boo jëlee sharikatu am na ayaat yu koy tegtale ak ya hadis boo jëlee bunta bu rëx nu muy tayle am na ay hadis yu koy tegtale ak yaaya boo jëlee wasiyatu muy ndénkaane am na aaya yu koy tegtale ci hadis boo jëlee aariyatu ji firi habbu am na ñu koy tegtale ci hadis ak ay aaya boo jëlee waddiatu ji firi dénkaane am na ay aaya ak i hadis waaye ñu ne aaya alquran buy tegtale xiraat wala hadis bu koy tegtale amut dañ ne benn hadis rek lañ ci xam bu koy tegtal te hadis ba daif la wérut mooy hadis biñ ne yonantoo ne inna fiha baraka moom walla qiraat wala walla mu daara ba barke nga ca loolu hadis bi wérut ñu lii rek lañ ci gis waaye ala kulli haal jëf nañ ko ci kanam yonantu bi saxaaba yi def ko mu saxal ko njëkk ñu koy yónni daana ko def gaa yi di ko def gannaaw bañ ko yónnee tamit saxaaba yu bari def nañ ko moom mu saxal leen ca kon saxal gi nañ ko saxal day tekki ni sunna la bu amul sunnatul qawliya am na sunnatul taqririya saxal ga rek sunnal boppam la moo waral bu continuer nekk luy am di continuer ba yonent bi génn àdduna abubakar ñëw weddi wut ko saxaaba yi di ko def omar ibnu xataab ñëw bi mu ñëwee nag moom att bi dafa mujj dal ci kawam num dalee ci kawam dafa amoon benn gouverneur bu ñuy tuddee abu muusa al ashari yu seyduna omar sampoon ko fële ca basra mu nekkal fa lislaam yàlla nag dogal ñaari doomi omar ya dem fa ànd ak soldaar yi muy doomam bu ñu tuddee abdullahi ak beneen doomam bu ñu tuddee Ubaydillaahi ñaari doom yi ñoo demoon ànd ak soldaar ya armée ba dem ba Basra bañ demee jaraaf ji nekkal fa lislaam nekkal fa Omar di Abu Musa al Ashari yu teral leen dalal leen ba ñu demee bay bëgg a ñibbi mu ne yéen de su ma amoon lu ma leen mën a defal ci luy tax seen xol sedd danaa ko def ah waye set nako set awma dudul alal li julit ñe fi ne go xamne sen baye ko mom mom lañ koy jox xamna na alal ju fi nek ben som sen baye lañ ko wara jox ci départ ci fur nga mëna dégg dal alal ji mëna 5 millions mi ngi nii sen baye ko mom waye bëgg na ngeen am ci dara lutax dafa bëgg neexal ñaari doomi Omar yi pour mëna a jot seen baay bu ëllëgee bu safan Omar min lu ndigam bu doon ñeneen ñi ci jité yi xam nga léeg-léeg nit ki bëgg lu neex kilifa ngi mu jaaree ko ci doomam mbaa mu jaaree ko ci gorom mbaa mu jaaree ko ci ku ko jege ñu jaaree ca loola di yàq rek mais Omar ku dëggu la nanguwut loola. mu jël juróomi million yi ne leen seen bàyyi ko moom mais bëgg naa ngeen am ca dara dama bëgg fii ngeen jënd ci marchandise ci juróomi million yi yëpp su ngeen demee ma mu Madinatul Munawara ngeen jaay marchandise ma. bu ngeen ko jaayee ba pare jël juróomi millions yay bopp alal ja jox ko seen baay bénéfice bu ci tegu lu mën a doon ñaari millions la ñett la ñeent la ngeen séddoo ko yéen ñaar maa leen ko defal su ma amoon sama poos yaatu lu ma leen mën a defal naa leen defal lu wuteeg loolu mais lii laa xam tey man leen ko dimbalee ñi jël juróomi million ya jënd ko marchandise ca Basra ñëw ma a war a jaay ko bénéfice bu bëri dolleeku ca ah Abdoulaye ak Ubaydillaay ñi ñaari doomi Omar ya ñëw ak bénéfice ba di jël alal ja di ko jox seen bàyyi ne ko juróomi million la ñu Abul Moussa Ashari yu joxoon ñu jënd ko marchandise dafa ñu ko lebaloon ah, buñ ko indee nag jaay dañ ko marchandise ma ah juróomi million yaa ngi nii le ñeenti million moo ci tegu ci bénéfice ñun ñaar ñii ñoo koy séddoo Omar ku maandu la mu ne waaw ba mu leen defalee yéen ñaar lii ndax defal na ko yeneen soldaar yi ma jurut ñu ne ko déedéet ñu ñaar rekk la ko defal mu ne ah li ngeen nekk di ñaari doomi buur bee tax mu bëgg a jot seen xol pour mën a jotaale xolu seen baay moo tax mu defal leen ko bàyyi fa ñeneen ñi nga xam ne seen baay dugut buur fu mu ko teg mais andi leen bénéfice bi ak alal ji lépp ma def ko ci banque jullit ñi jullit ñi bokk ko ah ba mu waxee loola Abdoulaye mii mag noppi ndax mag soo ko fekk ñaareel day xormaal baayam dafa koy wekk moo koy gën a respecté ndax yarab baayam dafa fekk mu pare ca moom waaye foo fekk dëngee gi gën a bëri rek ca doom yi ndaw la ñuy doon day fekk ba du paree gum dañuy ñemee seen baay ba ñuy màgg day fekk seen baay sippi na amatul doole daanaka rek bu leen yar ci wax ci wax lay doon waaye mag mi nga xam ne dafa ñëw fekk seen baay am kartan bu dëngee mu summi dara jëf door ko bu muy bëgg dé foko fekk mag ñi dañu ragal seen bay dañ dem ba am ñaari jabar ragal seen bay moo tax bi Omar waxé né 5 millions yeeg seen 4 millions yi bénéfice bi lépp lay duggal ci alal li yi ah Abdoulaye noppi tegu ca benn baat Obaydulaay mi di xalé mo gëna ñëmé bayam né ko ah waaw yow sama bay dama lay laaj halal ji mu jox ñu ñi garanti ko jënd ko marchandise ndax bu yàqoon dugul ne ñun ñoo koy fay mu ne ko waaw yéen a koy fay de mbaa mu def ko seen dëgg mu ne kon nag comme ñun bu yàqoon ñun ñoo koy fay yàlla dogal yàquwut am lu ko juddoo nga bëgguñu koo xeeñ Omar noppi ku maandu la mu gàtt benn saaba ca fa toogoon ne ko te nga def ñoom xiraat te mooy jëlal sa yaxu alal bi ba pare muy cinq millions yi 4 millions ya ca tegu ci bénéfice nga xaaj ko ci digg bi jël 2 million ya dolli ko ca yaa ko moom ndax sa xaalis a ko liggéey 2 million ya ca def nag nga séddale leen ko ñoom seen coonoo ko liggéey Omar nangu def ak ñoom xiraat boo xam ne genn wàll la mooy bénéfice ba lañ xaaj ca digg ba Omar jël genn wàll ga ñu jël genn wàll ga kon xiraat bu amul aayab alquran amul amul hadis waaye det nañ ko ci kanam yonentu bi ci saxaaba yi mu saxal ko bi mu fi bàyyee ko Aboubacar saxaaba yam yam jiite woon ñu ngi koy def mu saxal ko Omar ibnu Xataab par xàtte bi ñëw dal ci kawam waxul te dara loolu la mu di jëflante ñoom kon xiraat dagan na nag yàlla daganal ko ci nosee pas-pas gi mooy jàppandal nit ñi rek tinji leen bañ leen a tënk sàmm seen maslaha ndax nit léeg-léeg mu am xalal waaye moom lottu na ci yaxantu luy yokk xalal ja yaa ngi am ay million sa njaboot màggagut walla tey nit ki dafa dee bàyyee njabootam gu màggagut xalal ñi donn ko foofa buñ ko fa bàyyee asaka lekk ko day laaj ku jub ku ragal yàlla ku xam marché bi ku mën a liggéey dem liggéey ca alal ja man caa am dara ñii nga xam ne màggaguñ ba mën a liggéey man caa am dara ñoom tiit waaye nañ jub de buy jamono ji ñu bëri boo leen ko defee ñu tiir lekk xalal ja dem takk ca séet mbaa ñu tabax ca kër mbaa ñu jënd sa oto kon looloo tax lislaam daganal ko tinki nit ñi bañ leen a tënk sàmm seen maslaa mu nekk njariñ kii nga xam ne am na alal waaye mënu koo yokk mu nekk njariñ tamit ci ki mën a yokk alal te xamut alal ñoom ñaar ñi bokk associé kii xabal la tànk am nga tànk waaye mënoo dox wala yaa ngi nii bëgg ngaa dox waaye amoo tànk maa xabal la tànk yoo doxe su ko defé nak bo ñëwé rek mu nekk di jariñ waye bala mëna wër nak dëgg wax la ya balaa kerat mana wir, wér faaw ñetti sarta yi mo cey defo bu ca manki mu yaq sarta bu ñëkk ba dañoo wara téwal bop alal ja bop alal ja warta nekk marchandise xaaliss la wara doon buñ xam ñun nak suñ gaay yi dañuy defé qiraat ci marché Sandaga yeen ak may marché Dior tabaarakallaahu marché Njaareem marché Kaolack ak yeneen yi ci aju bu ci xëpp ca xiraat ba da ngay am sa surga muy sa rakk wala muy sa mbokk wala muy sa goro wala koo xam rek wóolu ko ci jikko xubbil ko magasin yow yaa jënd marchandise ma dem siin ñëw sol ko ba mu feet nga rek léeg moom xam ne nangam la su ko defee bàyyi ko fa muy jaay bu demee ba mu am juróom benn weer ngeen réglé Lajel jël sa bopp alal jël bénéfice ba ngeen séddoo ko la ca la ca gën a yaatu tama xam ko ñetti xaaj lay doon benn bi magasin bi benn bi yow benn bi moom su ngeen yàqulee mooy da ngeen waroo ko woon a jox marchandise xaalis nga ko waroon a jox xaalis la waroon doon bu ñu xam muy vingt millions ngi nii wala dix millions yi ngi nii yow nag ndax man nga cee liggéey mu ne waaw looy liggéey pour mu yokk nag yaa xam mu ne man dugub laay jaay nga ne comme dal na sa xel demal maa ngi dem jëndi ko dugub wala maa ngi dem jëndi ko gerte wala maa ngi dem jëndi ko ay morso maa ngi dem jëndi dàll maa ngi dem jëndi téléphone maa ngi dem jaay ay télévision nga ne ko daal na la wóor na juróom benn weer mooy suñu rendez-vous bu juróom benn weer jotee daal ci kàttanal yàlla da nga teg deux millions yi ma la jox wala dix millions yi su ko defee bénéfice ba ca tegu nga ne lii la ñu séddoo ko la ngeen juboo yéen xam bu ne dañ koy séddoo ci digg bi man benn wàll yow genn wàll lislaam d'accord na boo ne ñetti xaaj yow ñaar moom benn lislaam naa d'accord na boo ne ñeenti xaaj yow benn moom ñett ya wala yow ñett ya moom benn ba kon d'accord na ko lislaam d'accord na al muslimuuna ala shurutihim la yonent bi wax kon loolu mooy mooy kon première sarta ba an yakoona an yakuna ra'su maali naqdan darahima aw dananira fa in kaana tibran aw aw aw aw xiliyan aw arudan la tasixu su fekkee bopp alal gi dañoo ba war a nekk xaalis di ay ay dinaar wala muy muy ay dollar wala muy xaalis waaye bu nekkee wurus wi wala mu nekk ay takkaay wala mu nekk marchandise yi ay morso wala ay télévision kalaat ga wérut yàqu na laa tafiw li anna haadihi ashyaa siraun tubaaxu wa yutajaru fiiha wa laysat asmaanan yustara moo tax kon foo yustara biha kon foofu lay mbir mi yàqoo soo xasee def magasin rek ba sarse ba mu nekk bagage ngay jël nit di ca dugal bu ko tuddee ti xiraat tuddee ko moom mu nekk ijaaratu buntab ijaara lay mën a doon jaayal ma ma fay la bu la neexee nga ne ko weer wu dee ma fay la cent mille franc bu weer wi dee woon jaayut benn morceau da nga ko fay cent mille franc yi su yàlla dogaloon fukki fan la fa xam jaay magasin bi yëpp fukki fan dong nga koy fay cent mille ngeen juboo woon moom nga jël nga diffusé ko ñetti xaaj fukki fan ya nga jox ko ko ya ca des nga dugal ko sa poosal lam jaay lépp boo ba fay xem xem na bu ngeen continuer dina xam lii mooy ijaara mooy kuñ jox bagage kuñ jox bagage moom lii rek la mën a doon bu la neexee nga ne ko bagage yaa nga demal bu ngeen demee ba juróom-benn weer nga ñëw dinaa la fay nangam loolu lañ xam waaye boo bëggee def nag lii xiraat wala muraabaha wala mudaaraba yaxu xaalis nga koy jox moom lu mu mën a jënd moo xam su ko defee juróom-benn weer ngeen réglé nga jël sa yaxab xaalis ngeen seddoo seen bénéfice waaye boo ko joxee marchandise tuddee ko euh, loolu mu daara ba dagalu mënta nekk. kon ñu bari fii la yàqoo ñaareel bi tamit xaalis bi nga koy jox bu mu nekk bor bu gàddu woon ci loosam ba pare ameloon na la vingt millions xam naa ne nga caa mënta jot rek nga ne ko damaa bëgg ñu def ko xiraat maag yow jëlal vingt million yooya nga dem jaayi ci loo mën a jënd yaa xam boo toogee feeg six mois wala douze mois ñu réglé nga teg sama vingt millions fii su ko defee la ca tegu ci bénéfice ñu séddale ko daganut daganoon na nag nga fayee ko ko ngay millions yi ba pare mu tegu sa loxo ba pare nga joxaat ko ko ne ko demal nga def kaa ñu defi xiraam demal nga seet loo mën a jaay bu déwénee wala ñu ñu dajee euh, def inventaire lii day mën a doon waaye bor bu nekk ci moom loo sam fayagul la ko nga ne ko nañ ko def xiraat daganut yow da ko war a fayee ko ba téye ko door ko ko joxaat ñetteel ba timit mooy bénéfice ba na nekk luñ xam ci diggante kiy jaay ak borom xaalis mooy que say liggéey ak borom xaalis ba nañ ko xam ne genn wàll ak bénéfice lañ juboo wala ñetteelu xaaj ba lañ juboo wala ñeenteelu xaaj ba lañ juboo nañ ca d'accord xam ne tamit bu pertement amee ñoom ñëpp lay gàccoo xamul nga ne ko sa wàll yu moo perte dama la koy tiire daganut pertement bi ci seen kaw lay dal su fekkee bénéfice am na tamit ci seen kaw lay dal daganut tamit nga xoo ko ne ko damaa bëgg xaalis bi buñ ko defee maanaam vingt million yi yow nga jël cinq millions yi di ko di ko jëndee marchandise am nangam bénéfice booba cinq millions yay génnee man kenn ko moom quinze millions yi bénéfice ba muy génnee mu door koo séddoo daganut am na ñu koy def waaye yor daganut yëpp lañ war a boole rek moom mu dem xam la muy mën a dugg bu ko defee ala kulli haal mu dem jaayi ko ca lu ca génnee ngeen mën a bénéfice lenn nag mën naa am jox ko xaalis ba pare mu téye nga ne ko sa xel lum daj pour war koo jënd pour liggéey ko mu ne morso laa bëgg nga ne ko nañ dem ma wutali la ko mën naa ko wuti siid wala mën naa ko wuti fii sarcelle la ko benn bu ne nga ne ko yaa ngi nii xam nga lii lii lay jar lii lañ ko jëndee dañ xam lépp nag koon yow danga koo dimbale rek bu fekk tamit magasin baa nga fa wala nga wutal ko ko moom mu dugal ca bagage yow da nga ko jënd rek jox ko ko waaye dem nag jënd sa bopp ba pare door a ñëw nag taal dugal ba juróom-benn weer ñaan rek la bénéfice wala fukki weer nga jël mu jël yaxu xaalis ba nga euh, ba du génn mukk ñaareel daf fay des rek daf lay doon toujours du mën a génn mukk moo tax xiraat kon yaxu xaalis dafa war a génn ñu ne mi ngi nii ana li ma la jaay loon ñaari millions yi nga ne duggoon naa di baana baana ka yéeg a ka wàcc moom daal sa ñaari millions yaa ngi nii ana bénéfice ba nga ne mi ngi nii euh, un million cinq cent la ngeen door koo séddoo waaye bu ngeen duggee ci dugal sarfe magasin nii ba ba yowmal qiyaam euh, bopp alal ba du génn marchandise rek nga la mën a doon ah moom kay dagg ba ma koy farfil machine yi vingt millions laa ko doxal xool naa ne léegi macha allah dox na vingt six millions moo fa nekk kon jàpp naa ne ah, six millions yi mooy bénéfice vingt millions yooyu boobu ba tay ma nga fa loolu du du waxi dara ba tey du génn bu déwénee bu ngeen defaatee tamit nga xool mu yéeg wala mu wàcc rek nga ne ah la fa nekkoon ca yax ba ma nga fa la ca teguwaat lii la mbaa dañoo perte dañ ko xoolee loolu rek lay mën a doon ba yomal xëyam xaalis bi taxaw waaye da nga koy a yëkkati xaalis ba jox ko ko lu muy jëndi moo xam bu six mois jotee mbaa douze mois nga ne ko ñëwal ñu teew ana xaalis mu ne mi ngi nii loolu nag ku jub lañ ko mën a defar de jamono ji ñu juba dafa bëri wax naa la ko sànq ku bari boo ko joxee vingt millions yooya wala dix millions yooya mu dem takkee di ko jabar mbaa mu dem tabax ci seen kër wala mu nax sax dem seet ku ko mën a yóbbu bitim réew dootoo ko mën a jotati yow sa xaalis yàqu kon boo demee ba koy def daal ci joxe xaalis la ko lislaam bëggee ci buntab xiraat booba joxe lu xem rek Euh, su ko defee bu déwénee bu yàlla dogalee nga gis ne yokkute am na nga yokkaat tuuti rek waaye jamono ji boo ko defee tamit day dem ba mu bëri mu nax la ndax jamono ji da nga toll jamono joo xam ne ko ki nga xóolu yaakaar ko rek moo lay nax waaye ki nga xóoluwut tabaarakallaahu du ngeen jëflante ba mu lay nax rek noonu jamono jee yàqu waaye ala kulli haal daal képp ku bëgg a dugg ci buntab muraabaxa mbaa nga bëgg a dugg ci mu buntab ba wala nga bëgg dugg ci buntab xiraat ñetti sart yii mooy mën a daje bu ca manqué du mën a am teewal rësu maal ba te mu nekk xaalis ñi xam ne lii la moom lu muy jëndi moo xam ñaareel ba rësu maal boobu nga koy jox xaalis bu nekk bor bu nekkoon ci loosam ba pare nga bëgg ko koo tiire ni ci lay war a liggéey bu déwénee moom di bénéfice ba daganut mën nga koo fayee ko ba pare joxaat koo ko ne ko demal defi xiraat euh, su ko defee euh, ñetteel ba euh, na ngeen lan cay xam moom tamit mu xam lam cay xam bénéfice ba bu ñëwee yaa moom ñetteel bi wala yaa moom ñaareel bi wala yaa moom genn wàll ga man maa moom lii ngeen juboo ca ba dëppoo ca lislaam dana ko nangu bu dul loolu nag ñett yi bu ci dàqu rek xiraat ba yàqu na kon loolu la moom la yonantu bi defoon ak xal alali sayyidatuna Xadija Xadijatu jox na ko jox na ko yaxab xaalis yonantu bi dem di commerce ji lu ca ruusee rek tabaarakallaahu mu jox ko yaxu xaalisam ba pare jël bénéfice bi ñoom ñaar ñu séddoo ko moom la Omar defoon nag ñaari doomam ya indi nañ juróom millions yi ba pare 4 millions di bénéfice ñu ñaari millions yi jox ko Omar ñoom ñaar dem séddoo ci ñaari ya lii mooy xiraat moom la tuddee murabaha moom lañuy ñu tuddee mudaraba bi ci tegu danaa la wax lu ñuy tuddee asharikatu mooy bokk alal di liggéey. moom nag lu yaatu la bokk alal man naa ne bokk jëmm jëmm ya bokk di liggéey man naa ne waaye sharikatu daal ci luxa mooy tekki rek al ixtilaatu mooy jaxase xalal yiñ ñu jaxase la moom axnaaf di xanafi yu ne ñu ne mooy pas-pas boo xam ne fa dox ci ñaar ñu ko bokk ca bopp alal ji ak ca bénéfice ba maag yow daal dem nga indi somme un million mu indi somme un million ñu boole ko ubbi place di jaay wala ñu ubbi ay machine nekk ay tailleur di ñaw euh, su ko defee lu ca bu déwénee ñi ñi ñi ñi ñi réglé lépp lu ca yokk muy euh, lu ci ca yokkuwaat muy muy un million ah jëlal cinq cent mille ma jël cinq cent mille ñu seddoo ca bénéfice ba comme ñoo xema woon lu mu joxe waaye su fekkee nag maa joxe woon million cinq cent yow nga joxe million rek te ñoo lu ñuy def ca liggéey ba suñ demee bay réglé man mi joxe woon un million cinq cent maa lay ëppale yow mi joxe woon un million na ma la ëppalee ca xaalis ba bu bénéfice bi ñëwee nekk un million dañ koy partagé ñetti xaaj man ma jël ñaar ña yow nga jël benn ba ndax loolu laa la ëppalee woon kooku mooy sharika fekk na nag ñoo bokk luñ joxe te ñoo bokk lu ñuy def du koy liggéey boo xëyee ma xëy boo wàccee ma wàcc boo gontee ma gont te man maa la ëppale luñ joxe kon tamit maa la ëppale lu may encaissé ca bénéfice ba moom nag mën naa am tamit moom sarikatu ciy jëmu maa ngi yow kenn joxewul dara dañoo jël nekk ñaari mbënise ñu dem di xari bant ak di ko séex ak ya ca xaju boo xëyee ma xëy bu ngoon jotee ma boo gontee ma gont bu weer dee ñu boolee fay ñu comme ñoo bokk lu ñuy def ñoo boole suñu alal yi kon dañoo war a maag yow ñooy xam képp ci bénéfice ba wala ñu ñoo bokk nekk ay tailleur maag yow ñu bokk dem ci ku ñu embauché boole ñu ñun ñaar ñu bokkuy liggéey weer gu dee mu ne laa leen jox cinq cent mille cinq cent mille yooyu noona maag yow bokk lu ñu def kon ala kulli haal ñoo koy bokk fayeku kon doo tuut xaalis buñ génnee mais jëmm ya lañ joxe jëmm ya bokk di liggéey kon bu weer dee tamit lu ca génnee ñoom ñooña ñoo koy bokk kon euh, associé ci xaalis mën naa am associé tamit ci jëmm mën naa am yooyu yëpp mën naa ni associé sax mën naa am ci nga nekk actionnaire ci dara da jékki-jékki rek joxe nekk actionnaire ci benn banque wala ci benn société sa alal nga ca joxe weer wu dee wala at mu jot buñ defee rek réglé ñu ne yow kat am nga ci lii loolu ci masala yu bees yi la waaye loolu dagan na moom nag bokk euh, bokkoo liggéey di bokkaale ga alquran wax na ko yàllaa ngi wax ne wa in kaana rajulun yurusu kalaalatan aw imraatun wa lahu axun aw uxtun fa li kulli waahidin minhumaa sudusu fu mu ko waxee mu ne fa in kaanu aksara min zalika fa hum surakaa'u fi dafa bëgg a wax nit ki bu dee bàyyi benn doomu ndey kese ki mu bàyyi mbokk la ci wàllu ndey kese maag yow daal ndey rek lañ bokk bokkuñ bàyyi foo ko fekk na sant yi dañuy wutee ku muy dal maanaam ku yaayam sëy ay yoon ñi sant Jóob ñi sant Njaay ñi sant Jaxumpa kenn ca ñoom génn àdduna su boobaa nag ñam bokk ak yaay ñu ñëw di ko doon te bokkuñu baay su fekkee kenn rek la sudus lay doon mooy juróom-benn li xaaju alal ba su fekkee mën na ñaar jëm kaw góor lañ jigéen lañ dañ leen di boole sudus ba sudus booba nag bu ñu koy séddoo góor ñaar jigéen benn amut fa ñëpp a cay xem de képp moom la alquran ni fahum surakaaw fii sulusi loolu nag moom la ñuy wax sarika ñaareel bi ay yonent bi anaa naa ana saalisu sarikayni ñaar buñ bokkee fas dara man maay ki leen ñetteel feek kenn kafur moromam maa lam yakun ahaduhuma saahibuhu fa in xaana ahaduhuma saahibuhu xarajtu min baynihima abu daawuda bu bokk ci hadisi abi hurayra ya mu ne ñaar daal buñ bokkee fas dara luñ mën a fas muy lu yàlla daganal rek man taxaw naa pour ñetteel leen fekk kenn ko xorul moromam bu kenn ko xoree moromam man yonent bi génn naa ca jamono ji koo fas ak dara mu xor la moo tax yonent bi génn ca barke génn ca kon loolu ko doon bokk associé bokk alal di bokk di liggéey muy meññ ngeen i séddoo daana ci jamonoy seyduna muhammad sallallahu alayhi wa xeeti jëflante yooya taabiyoon yi ñëw topp ko taabiyoon taabiyoon yi ñëw topp ko wax naa la ko moom tamit nag ñaari xaaj la bokkaale goo xam ne bokkaale moomeel la ci pas-pas kooku mooy tey bokkaale ga dañoo bo lu mat ñaar mbaa ñett wala juróom wala fukk wala lu ko ëpp ñoo bokk génn kër wala ñu bokk benn suuf mën naa xam dañ leen koo mayoon wala seen baay a deewoon ñu donn ko ca wala dañ koo jëndoon su boobaa ñoom ña bokk ñoo bokk njëriñ la nañ bokk dëkk rek ñu ñëpp bokk dëkk mu jeex su fekkee bokkuñu dëkk nañ bokkuñu ñu luye ko lu cay génnee ca xaalis ba ñoom ñëpp ñu bokk ko séddoo loolu da ngay xam léegi ñaataa fi dee bàyyi fi seen kër yi seen njaboot ga te muy raasaguñ ko loolu sarika la bokkaale la ak bokk taxaw na su boobaa kon lépp lu génnee ca alal ja rek ca kër ga ñoom ña war a doon bàyyi ja yépp ñoo ko moom muy jabar yaak doom ya lu ca génne ñoo ko war a bokk su ko defee euh, euh, séddoo ko euh, loolu la ca lislaam bëgg bokkaale gii nag du dagan ñi bokk dara suñ bàyyi dee bàyyi ñu kër gi mbaa ñu mayoon ñu ko wala ñu bokk ko jënd man ma cay soppandiku te fekk yow d'accorduloo ci ma cay soppandiko nu wuute nang nga soppandiko soppandikoo ñun kay ño bokku lepp kenn ku ne nang nga jariño jëriñoo li léegi sa morom di jariño ño wara a xemoo ca njëriñ ga loolu l'islam bëgg bu yoyé daqo dagana tut koku moy sharikatul amlak amna ci lu ñu tuddee sarikatul uquud pas lañ bokk moy ñaara bokku fas dara wala lu ko ëpp ci am njaay su ko defee ñu ne ñoo bokk lii suñu alal yaa joxe dara ma joxe dara ñu bokk jënd ko marchandise bi jaay bénéfice boobu ñëwee ñu séddoo ko bu pertement ñëwee ñun ñaar ñëpp ñu bokk ko. xeet yu bëree bëri la doo ko doon tëkk ñeenti xaaj ñeenti xeet la bi ci njëkk moom ñoo sarikatul inaan bokkaale gox bi ndax boo dañ tuddee ko sarikatul inaan ñoom ñaar dañoo bokk alal ji di ca yaxantu bénéfice boobu ñëwee ñu ko ñoo ca xem képp fa mel ni ak gox bu alal ji bu doon buum kenn ku ne téye nga ci benn car kooku mooy sarikatul xinaan ñoo bokk luñ joxe ci som bokk lu ñuy def kenn du ci ëppale sa morom wala mu nekk kooku nag mooy dañoo fas ñaar ci bokk di fàggu ci xalal ak jëmm joxe nga xalal joxe sa jëmm sa doole ñi bokk kenn ku nekk warlul moromam ne euh, euh, lu ca mën a nekk yow yaa ko gàddu lu ca mën a nekk tamit kële moo ko gàddu loolu mooy mu faawada mën nañ koo firee ci neneen ñaar ñu bokkaale ci ak jëpp ak ci alal bokk di fàggu ak di soppandiku bénéfice ba nekk ci seen diggante pertement ba nekk ci seen diggante ñi bokk ñoom ñaar ñëpp di liggéey mën nañoo bokk benn place waaye nag lu ca mën a yàqu ca kooka la muy liggéey moo koy garante moromam ma kële lu mu yàqati mi yaa koy garante kooku mooy mooy sharikatul mufaawada loolu tamit dañ koy sartaal eh, bokk nekk benn xeet façon xaalis ba ñuy bokk nekk benn xeet benn marchandise eh, mu nekk benn xeet benn façon ñaareel ba xalal ja dafa war a xem ñoom ñaar yëpp dañoo bokk luñ joxe ñetteel ba dañoo war a xemoo ci soppandiku ga eh, buñ buñ wutee soppandiku rek daganut kii nekk xale ku mësoor ku mësoor agut dem bokk ak alal ku mësoor daganut ndax kii lim man kee mënu ko dañoo war a xem kii bu nekkee jullit kii nekk xéeféer xaraam na ñoom ñaar ñëpp ñoo war bokk nekk xéeféer waaye mu benn ba newee la kenn nekk la rek loolu xaraam na nekk tamit kenn ku ne ci ñoom ñaar nekk garante ci sa morom mu jeex mu des nag ñetteelu xaaj ba mooy ab abdaan bokk ci jëmm bokk di liggéey joxe woo joxe huma waaye jëmm yaa bokk liggéey lu ca génnee ca njariñ la ñi bokk ko kooku mooy ña ngay liggéey ñoom ñaar liggéey buñ xam bénéfice ba la cay génn ñoom ñaar ñi bokk ko kooku dagan na ñaareel mi ngi gën a amee ci ñaar ñoo xam ne ay menuisier lañ wala ñu nekk ñaari tëgg duñ ko xëy ñu xëy rek nekk ca wala ñu nekk ñaari tailleur ñoo bokk lu ñuy liggéey wala liggéey a jege lool lépp lu ca génne ca liggéey ba rek tabaarakallaahu ñoo ko bokk mën naa nekk sax benn maçon ak koo xam ne coffreur la man damay maçon laa maay tabax yow nga yore say bant di coffre ñu bokk gañe euh, bâtiment bi fu ñu yeggee ci wàllu tabax ma tabax fu ñu yeggee ci wàllu coffre nga coffre su ko defee lépp lu ca génn ca xaalis ba ñu bokk ko séddoo noonu mooy li la gën a jege pour nga mën koo dégg kooku mooy sarikatul abdaan am na lu ñuy tuddee sarikatul wujuh mooy ñeenteelu xaaj ba mooy kenn day dem jëndi ci loo xam ne xam na ko ci marchandise bi man kat sama xam-xam ci wàllu marchandise mooy tis muy morso ki ñëw ne man li ma xam ci wàllu marchandise mooy télévision ñu jël alal ja ki dem xaji jënd lam xam ki dem jënd lam xam ba ñëwé ñu bokku jaxase ko jaay lépp lo xamé né génné ko na ca ñom ñaar ñi séddo ko bu pertement ba ñëwé pertement ba dal ci seen kaw ñom ñaar ñëpp kon li moy buntu associé bokku halal mu ngok wax la ko ñenti xaaj ya mu nekk manam euh, sharikatul inan ak sharikatul mufawada ak manam sharikatul wujuh ak sharikatul abdaan yenn yu ca nekk wax naa la ko lu ko lislaam d'accordé waaye bokkut ak léegi li xew di di sëy ak nit ngay jëkkër muy jabar ngeen wax ne yéen ñaar boole ngeen seen am-am yi bokk leen lu ngeen liggéey bokku leen lu ngeen am seen wërsëg yooyu amul ngeen nekkat sama xalal mooy sa xalal sa alal sañ naa cee soppandiku sama alal sañ nga cee soppandiku ngeen nekk ci signé loola nga dee sa sa mbokk yi boo amul doom duñ mën a doon ci alal ja yéen ñaar seen sëy ba bu bu bu doom xamul ca sëy ba rek problème am na. bu ca doom amoon nag seen doom yaa moom alal ja mu jeex waaye tey doom amu ca mbokki ku jigéen ci bu ñëwee am problème mbokki ku góor ci bu ñëwee am problème kon signé yooyu ñu signé tam mu nekk lu xew. te jëlee wuñ ko lu ko tubaab yi daganut dafa xaraam li lislaam xam daal jëkkër lum néew néew doole moom moom xalalam xalal ja lum néew néew ci la war a yore jabaram jabar lum bari bëri xalal moom moom moom moom moom alalam lu ko ca neex ku ko ci neex sañ na koo defal buy dimbale jëkkëram nag ci kër gi di ko si jàppale yàlla fay ko ca loolu daal la lislaam xam waaye jëkkër ak jabar bokku séyee nañ seen alal mu nekk génn ak moomeel kenn ku ci lu si neex indi si nàngam problème lay doon yàlla nee nañ jaxasekat yëpp fu ñuy mujjee mooy jaxasoo rek way na minal xulataay la yëpp koy baax du laa baax dit kenn mënu ci dara foo fekk ñu jaxase alal fa ñuy mujjee mooy jaxasoo rek